alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala subudatil akwaan wa kaabatil arwaaxi wal abdaan sayidina muhammadin majmaci shuunihi wa xaqiqati kunhi sirrihi wa ala alihi xaq qadrihi wa miqdaarihi al azim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 wa rahmatullahi wa barakaatu di dellusiwaat ci kartanal yàlla di sof ak yow li ma sosoon ak yow lépp rekk mu jublu ci wàllu jàkka yi di palaas yoo xam ne dañ faa waroon a fajoo ngir jàngoro yu bon yi nekk ci ñun ci bëgg àdduna bëgg daraja ak rëy ak soxor ak iñaan ak nay ak bëgge waaye jamono ji li ëpp ci jàkk yi dafa yokk suñ feebar yi di ko gën a rëyal di ko gën a bari li ko waral dafa bari ci ñuy nekk ci jàkk yi ñi ñu waroon a jiite pànk tax tey ñoo jiite jàkka ya di ko dirise te la ci ëpp ñaari réer yi dafa leen a dal mooy réere seen bopp jaaral bi ko réere ne dañoo réere seen bopp ak réere liñ war a xam loo xam ne bu ko nit ki xamut julli du mën a wér ci moom te gannaaw bi mu ko réeree dafa réere ne dafa koo réere loola muy jëxlul mu rakkab bu ko nit ki nattoo sa kilifa te mu lay jiite musiba mënta ñàkk dal ci sa kaw ñaareel bi dañ faa waroon a fajoo ak rëy waaye léegi ñu ci bari ci ñu ko jiite sax ñoo gën a rëy léegi-léegi ilimaan nekk ci jàkka wala jumaa jiite yàq baat boo ko ko defaralaatee mu def la noonu wala mu gàgg nga gàgganti ko mu def la noon ne def nga danga may wan ne man ngaa jàng waaye loolu kay danga ko waroon a sant gërëm ko xam ne nit ki matul te kenn ku ci nekk tamit sa moroom moom la la yàlla indil pour mu mottali la waaye fu ma ni koo fi gàgganti mu def la noon ku fi runge masala wala mu juum si fu ñu waroon a xab la mu def baax da wala baax da mu def xab la nga ko koy leeralal ne ko lii la dafay mujj féttirlu indil la yu kenn xamut te doo ca man dara koo ci wax dëgg ñooña tamit mu mel ni danga nga koo rayalab sab taaw kon ñi war a jiite fu ñuy fajoo bu ñu gënee feebar ku fay faju ji da ngay gën a feebar rek kenn mënu ci dara te loolu lañ bëri li léegi su ko defee tamit ñi warta jiite rek ñoo mujj di jiite tey palaas yi yonent bi ne loola bu ngeen fa yeggee rek xam leen ne torox ngeen wa kaana zaimul qawmi adallahum wa ukrima rajulu maxaafata charrihi naan sàngara bari sol yëre yu rafet koo gis yëreem yaa gën a rafet jikkoom ja te loolu bari leen nañ ko ji jamono ku romb bu solo la nga teg rek lalal naa la iskay waaye wan naa ci yàlla ka nga doon wax iskay cay waay ngir colaayam bu jëfee nga ne iskay cam waay sa cay waay ga da ko remplacer cam waay maa la ko wax su ko defee mu ne coow yu bari ci jàkka yi foofu lañ tëjee woon darso bi démb yëkkati coow ci waxtu wu ñuy war a julli war a jaamu yàlla xataa buy lu baax sax lu dagan sax daganut yëkkati turu yàlla yi ñuy julli yëkkati jàng alquran muy jax-jaxal nit ñi loola ci yooyee heure sax dañ koy tere abi saidul xudri yu mooy wax ne yonent bi mos nay def li'tikaaf ci jàkkaam ji dégg ay nit ñi ngi yëkkati kàddug alquran di jàng ca kaw mu mujj hubbirudo ba ne alaa inna kullakum munaajin rabbahu falaa yu'thiyanna ba'dukum ba'dan wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati imaam ahmad abu daawuda ñoo génnee hadis boobu mu bokk ci hadisu abi saïd al xudri wi yonentu bi na yéen ñëpp yéen a ngi diyaaleeg seen borom kon nag yéen ñëpp fi ñëw di diyaaleeg seen borom bu ñenn ñiy lor ñenn ña bu leen yëkkati kàddu ci kaw ñenn ñi ci njàng mi wàccee leen nànk rek rawat na nag nga nekk fa di waxee fi politique mbaa nga nekk fa di jéem a indi ay coow mbaa nga nekk fa di werante mbaa nga nekk fa di commentaire mbaa nga nekk fa di waxtaan Cheikh na Tidiane ne loolu day waral sa jëf ju baax ji nga xamoon sax màbbu nga commencé à euh, zéro sa batterie bi vidd na. juróom-benneel ba dañuy tere jàkka ñi fay dugal ay xale yu jàqeewul sobe xàmmeewuñ laab amaguñ caf nga ak jaamu yàlla mën nañ faa nekk di coow mbaa ñuy fox borom risaala ne su fekkee buñ foxee boo leen femmee ñi taxaw yóbbu leen jàkka dara néew ci. waaye su fekkee bu ñu foxee boo leen femmee dañuy continuer fo mën nañ faa nekk di coow mbaa ñuy yuuxoo mbaa ñuy jooy ba bañ a yàq ba yàqal ni nga seen teew la ko mel noonu kenn du ko yóbbu ci jàkka wa yukrahu idxaalul sibyaani idxaalul sibyaanil masaajida ida kaanu laa yumayisuuna bayna najaasati wa tahaara siyaanatan lil masjidi yooyu yëpp nañ koy bàyyi xel bu ma waxee xale yi nag dugalaal naa dof yi ay dof kenn waru leen dugal ci jàkka ñiy jax-jaxal nit ñi léegi nag waxatuma dof yi dugg jàkka waaye dof yi ñoo jiite suñ jàkka yi léegi ak jumaa yi ñu ci bëri nitewuñ am na loo xam ne ku nite doo ko wax am na loo xam ne ku nite doo ko def kon nag majaan niin yi yonent bi waxoon ne bu leen leen dugal ci seen jàkka yi ak seeni xale jàkka yi waxatuma dof yay dugg waaye dof yañ ca waroon a génnee ñoo cay dugal nit léegi moo tax ñu naan jannibu masajadakum sibyaanakum wa majaninakum wa shiraakum wa bayaakum wa xusumaatikum wa rafaa aswaatikum wa iqaamata xuduudikum wa salla suyuufikum wattaxidu ala abwaabiha al matahira wa jammiruha mun imaam munfir ibnu majaha tabaraani ñoo solo hadis boobu moo yonantu bi ne seen jàkka yi na ngeen ci soril xale yi xale yu xàmmeewul sobe jàqeewuñu amuñu caf ngaak jaamu yàlla di fo bu leen leen dugal ci jàkka yi waaye xale bu am caf ngaak jaamu yàlla kay yow mag mi ngay tarde ba mu njëkk la ca saat piccu njëkk ca du ko xëccati boo fa bëggee taxaw njëkk la dem rek xale buy njëkkee sàppi su njëkk kay kooko dugatut xale mag piir la xale la ci jëmm waaye mag la ci jikko su boobaa nag yow mag mi boo tardé ba xale bi taxaw ca sàppe yooya nga ñëw di ko puus naan ko demal fële mun a duma puusu yaa tooñ waaye du moom waaye xale buy fo te boo ko artoo wala nga femm ko du bàyyi kooku lañuy wax ne ko kenn yóbbu jàkka bu leen yóbbu dof yi nit ñi nag ñun sénégalais yi kiñ jàppee muy dof kooka dafa hëpp kooka hëpp na dof ñun ko hëpp dof lañuy tuddee dof mooy kuy kuy kuy kuy sol ay sagar wala muy yëyi sagar wala mu def awraay kese feek xegg goo foofa jàppale ne dafa goo na ku la romb toilette ba ak otom ba fekk moo mooy première dof yi ku ko ku ko xeew xeew dof ku ko jàpp jàpp dof ku ko fi bàyyi bàyyi dof yi xam na wax yoo xam ne ak jëf yoo xam ne ku koy def dof piir nga dof mi ngi commencé ci jàpp ne yaa gën a muus ñëpp rek bis boo foogee ne yaa gën a muus ñëpp man ngaa jaay nit ñi lekk seen njëkk rek yaay ki gën a dof ci nit ñi te loola du jeex bëri na yilimaan yoo xam ne boo leen joxee sa bopp ñu jaay la jëndee la saa koy ceeb mbaa jëndee la ay yu kenn xamut ku mel noona dof nga kooka nag di ab dof tey waxutuma ñu waroon koo génnee mooy dugal ni nga ci jàkka ja loo ja man yonentu bi ne sallallahu alayhi wa sallam mooy ngeen ku seen jënd bu leen jënd ci jàkka bu leen di jaay mooy ku leen xuloo ci jàkka yi xuloo ya du jeex ca diggante bilaal baak ilimaan ja diggante yalwaankat yaak ji ah, gisoon naa ñu sarax la kayitu dix mille te mille franc nga wane coow la dëkk ko feñ ya du jeex yalwaan ba pare dugg ci ab pantare jël kayit ya gën a xam doole dugal sa poos dem ci ilimaan gi ne ko lii lañ ma sarax mu ne du lii ngeen commencé xëccoo xeexoo wala ngi takkab sëy laaj ba pare ngeen nekk fa di werante ci ca lañ laaj ba mujj xuloo fa xeex du jeex lépp ba nga tam àdduna kese kon mooy tundiku leen xuloo yi tey nag jàkka ja mooy marché xuloo yi ci limaan yaag maamoom ya ca noddukat yaag naskatum gise yaag yalwaankat yaag fuñ toll ni ñëw leen ci liggéeyab jàkka ji xanaa jàkka ji du mat nag xanaa ñëw leen ci ñiy jéem a liggéeylu liggéeylu jàkka ji mu ne mooy tundiku leen yëkkati leen seen kàddu yi ci jàkka yi mooy tundiku leen di fa taxawal ay gétén mooy tundiku leen di fa so di fa bocci jaas yi jàpp leen bunt ya def ko def fa ay laabuwaay ku ko am sobe mën a am fu mu laabee taal cuuraay ci biir jàkka yi lii la yonent bi santaane tere safaana yooya su ko defee tamit kon yooyu nañ koy bàyyi xel jannibu masajidakum sibyaanakum wa majaaninakum wa shiraakum wa bayaakum wa xusumaatikum wa rafaa aswaatikum wa iqaamata xuduudikum wa salla suyuufikum wattaxidu ala abwaabiha almatahira wa jammiruha loolu la yonent bi wax sallallahu alayhi hadis la bopp tabaraani yu ko ak ibnu maaja ak imaamu munzir kon nañ ñoñeel jàkka yi du marché bu ñu fay jënd ak a jaay bu fay sadd ay way bu fay defee ay géewi garan place bu ñu fay déebaane lu réer yonent bi tere na jënd ak jaay ci jàkka tere na sadd ay way ci jàkka tere na jéebaane lu réer ci jàkka jéebaane lu réer nag ci jàkka am na sew-sew mooy lépp loo xam ne warta dugg ci jàkka ba fay réeree kenn koo jéebaane ci jàkka ñaareel bu waxee rek jéebaane lu warta dugg ci jàkka ba fay réeree kenn du ko jéebaane ci jàkka lu mel ni gëléem sa gëléem gee réer sa fas wee réer sa keesu saret gee réer sa xar yi sa bëy yi sa ganaar yi yooyu yëpp dugg jàkka mënul caa dugg sax kon bu fa réeree waruñ ko faa jéebaani waaye loo xam ne nag mën naa dugg ca jàkka te la gën a bari day dugg jàkka bu fa réeree mën nañ ko faa jéebaane nit kuy dugg ci jàkka ji indihaale carte d'identité am wala kayitu juddoom mu réer fa nañ ko jéebaane dara néew ci sa montor bi moom nga indi ci jàkka ji mu réer nañ ko jéebaane dara néew ci portable mën na faa réeree waru faa dugg nag bu fa mën nañ koo jéebaane kon loo xamee na nii mën naa réeree ci jàkka ndax la na faa dugg bu fa réeree mën nañ ko faa jéebaane waaye lu mënta dugg ci jàkka warul faa dugg bu fa réeree kenn du ko fa jéebaane loolu la ko boroom xam-xam yi settee kon portable ak montoor ak ab xaalis ak yooyu ay dàll yooyu yëpp fa réeree mën nañ ko faa jébaanee dara nekkut ci waaye gëléem gu réer fas wu réer xar mu réer bay wu réer gerte guñ sàcc ngooñ muñ sàcc oto buñ jël bu ko kenn jébaanee ci jàkka yonentu bi ne ko ngeen dégg mu wax ko sax wax leen ne yàlla bu ko yàlla delloo ci yow te loolu mooy tekk yàlla bu ko yàlla feeñal kese loolu lay tekk kon loolu lañ ca namm ndax ñaareel loolu lañ koy gën di appliquer ci loolu su ko defee yonent bi mos naa dégg benn waay mu ngi ci biir jàkka ji di di jéebaane gëléemam gu réer yonent bi ne laa raddaha allahu waqad amara nabiyu salaa sallam man samia rajulan yunshidu daalatahu fi lmasjidi an yaquula laa raddaha llaahu alayka xatta laa yacuuda bi misliha bu ko defee nañ ko wax loolu ba nga xam dootu ko defati bu ko keneen déggee tamit dootu ko defati yonent bi waxaat na ko ci xadis boo xam ne abi hurayra moo ko génnee mu ne man samia rajulan yunshidu daalatahu fi lmasjid fal yaqul laa raddaha llaahu alayka laa raddaha llaahu alayka fa innal masajida lam tubni li haada jàkka ji tabaxuñ leen ko ngir jébaane lu réer kon yooyu nañ ko ci bàyyi xel yëgle fa timir yëgle bépp information boo xam ne waa jàkka dañ ko war a xam wax ko ca jàkka ja dara niwu ca waaye information boo xam ne concerné wut waa jàkka ji kenn waru ko faa wax information nag bi concerné jàkka ji moo ñu julli ba pare ngeen xaar leen. dañoo war a takkab sëy takkab sëy am na fi dafa ajoo ci wili jàkka ji loolu mënuñ ko ñàkk a wax pare ba pare ñu ne am na ko wàññeeku ci ñun heure sàngam koy war a denc loolu wax ko ci rajo yi mbaa nga ko dara néew ci loolu information boo xam ne waa jàkka gi dañ ko war a xam wala ñu julli ba pare nga ne xaar leen am na benn kenn ku wàññeeku ci ñun dañ ko war a jullee bu leen yàkkamti xaar leen information la bu waajoo ci jàkka ji waaye nag. ñi def jàkka ji ba pare nga ne ah prix gerte gi de yokku na di ko wax ci rajo ba wala diw de këram nga nangam ak nangam ak nangam ak nangam loolu commencé lu mbiram jàkka ji kon lu jëm ci loo xam ne waa jàkka jaa ko war a xam ñu wax ko ci jàkka ji dara newu ci loo xam ne nag waa dëkk baa ko war a xam waxee ko ca dëkk ba waaye bu ko waxee ci jàkka ji kon nag yooyu yëpp dafa jar a xàmmee soo ko xàmmeewul rek mën naa indi njuumte bu rëy rëy rëy rëy lislaam xatalut mais dafa yaatal. waaye nit ñi nag ñun ñii ñooy xatal suñ déggin yi rek boo déggee boo xatalee sa déggin rek mën ngaa andi jafe-jafe kon yooyu nañ koy daw jéebaane yeeg ya ca xaju lu réer te mu nekk loo xamee ba mu réeree ta réeree ca jàkka ja xam nga ne am xar mënta réeree ci jàkka ja nag aw bayam nag mënta réeree ci jàkka ja gerte ga ak dugub ja mënta réer ci jàkka ja kon buñ ko waxee ci jàkka ja lu réer te mën a réeree ci jàkka ja nag sa carte d'identité beeg sa xaalis beeg sa kalpe beeg sa portable beeg sa montor bi mën nañ ko jébaane ci jàkka ja loolu dara newu ci information boo xam ne jàkka ja dañ koo war a xam ñi julli ba pare wax ko ci rajo jàkka dara newu ci waaye information boo xam ne nag dëkk bee ko war a xam waaye duhut jàkka ji euh, kenn du ko wax nag ci biir jàkka ja kon yooyu dafa jar a xam dafa jar tamit tabaarakallaahu xàmmee ko bu baax a baax a baax jàkka yaa ngóog ku ca dugg bul fa nelaw jàkka du palaasu nelawaay waaye am na ci ñoo xam ne surtout weeru koor dañuy dem ci jàkka yi am kilim rek te dafa di nelaw rek ni ñu ci bëri tam buñ ne na ngay nelaw bu bu ilimaan gi taxawalee julli rek ñu taxawal sa nelaw yu diis yi kay xanaa su njàppale war naa yàqu nag waaye ñooñu ñoo njëkk a préparé dem ci jàkk dem ci dem ci sàppe sax nit ñi daal léegi kenn xamul daal moom daal li fi nekkee ñu mun koo wax sax kenn mënu koo wax tamit. kat yu bari boo fee doon tey waaje nelaw na bay bëgg a dee ñu ne ni nga tax jàpp ni ay ah, yow kat xaw ngaa kii di mu ne ah, xaw naa fee mos de mu ngi xaw naa xaw naa mos tuuti du wax ne nelaw naa de te fekk na dem mën naa xam sax doon xaran waaye boo ne nanga mu ne xaw naa mos bokku ca ñuy defar sa sax mbaa mu li xam su ngeen sàgganee sax mu jiite leen mënoo ca dara loo ci man dara su ko defee kon nag yooyu yëpp lu doy doy waar la moom daal. dañoo feebar rek moom daal yàlla nañu yàlla fajal boppam waaye feebar bi bëri na de feebar bi bëri na de sakkan na de yaatu na de daje daj na kàpp boo xam ne mucc ca nekk na loo xam ne ni lu jafe-jafe-jafe la kon nag nañ ciy bàyyi xel bu baax a baax a baax a baax kon daal jàkk yi néegam yàlla la ku fa dugg na nga takkook teggiin na nga ànd ak yar danga nga ànd dal na nga julli na nga teew lu julli ga bu julli ga ñëwagut tuddal yàlla di ko teewlu feeg ba ñuy ñëwee su ko defee su boobaa da nga am yoolab koo xamee na nii ma nga doon julli yooyu yëpp ñu def ko bañ nekk fa di waxtaan dafa yëkkati wax ju kenn xamut yooyu yëpp nañ koy daw tabaarakallaahu ci jàkka yi te soril ci lépp loo xamee ne mën nañ ko yooyu yëpp nañ koy daw te di ko soril di ko bàyyi xel ci lépp loo xamee ne nii mën nañ ko ndax yooyu baaxul ci di daw nelaw jàkka du nelawukaay bañ fay teg boolu lekk bi fekkee jumaa la jàkka du lekkuwaay bu dee jàkka yi nag lu mel ni ruy ak yooya boo fa tëddoon di nelaw janaba dab la gaawal nga génn jàkka ja bu dee sa deret tuuroo bul taxal bul taxal jàkka ji génnal gaaw nga dem defi ko fa jàkka ja mën nañ faa takkee sëj yi bu fa nit ñaari ñi jotee mën nañ leen a xàtte waaye bu ñu ko def place su xàtteekaay mën nañ faa takkee sëy yonent wax ne alinu hadha nikah wa jaaluhu fi lmasajidi wadribu alayhi bi dufuuf tirmisi yu moo génnee hadis boobu looloo waral mën nañ faa takkee sëy bu ñu fay war takk sëy te mën nañ koo annoncé waa jàkka ja xam ko ndax xibaar la boo xam ne dafa concerné jàkka ja yëpp ñu war koo mën a xam kon loolu dara ñëw ci su ko defee kon nañ koy nañ nañ ciy bàyyi xel nelaw yaag li ci haju ak lépp loo xamee na nii ci waxtaan ya ak sobe saak yi ñu war a daw yooyu yëpp nañ koy moytandiku ah mu des rek daanaka yalwaankat yi ndax daanaka léegi nag eh, jàkka yi mooy palaasu yalwaankat yi yalwaan su fekkee ne ngànt moo la dab ba tax nga yëkkati ñi julli ba pare rek nga ne damay sàkku ndimbal yooya ñu yëkkati ndimbal jox la dara niwu ci imaam ahmad julli na nit yelwaan ci kanamam peggam mu yëkkati ab sarax jox ko ko sarax booba sax beneen waaye ñëw ci waa ji ne ko jaay ma ko ñaari dërëm mu bañ ñetti dërëm mu bañ ba mujj nangu ko ko juróom fukki dërëm mu ne ko li nga ci bëgg laa bëgg damaa yaakaar ci lii mu jox ma sarax du la ko jaay dama cee yaakaar barte kon kooka saraxee na ci biir jàkka gis na tamit ku saraxu ci kanam mam ci jàkka ta waxu ci dara yonent bi daana wane saraxukat ci jàkka xadis boobu ngay dégg ci salik alxatafaani yi yonent bi doon julli di xutba kon bisab ajjuma moom mu ñëw toog te ab yalwaankat la saxaaba yu bari dañ daan dàkk sarax ci moom ngir néew dooleem yonent bi ne ko jugal nga julli ñaari rakkaa imaam Bayhaqi yu moo ko solo Ibnul Arab mi bokk ci ngiru Malik bokk na ci mu ne bokk na ci li taxoon yonent bi ne ko jugal nga julli ñaari rakkaa wane ko pour bëgg ñi indi seen sarax doon ko dàq ci moom mu wan leen ne bu leen ñibbeeg sarax yi salik mi koy moom mu ko moom mi ko xeewoo ngi nii bala ngeen a dem ngeen jox ko ko mu yeddaale ko ki timit mag mu toll ni yonantu bi di kilifa ak ñëpp war koo jiitu nga xam ne bu ñëwee rek dañoo war a tàmbali liggéey ba nga nekk ci xàll bi ba kilifaak jotaay ba ñëw toog ngay door di ñëw xam nga loolu bokkul ci dal bokkul ci yar bokkul ci jox sa sa sa sa kilifa xormaam kon loolu na ko ñëppuy daw du xorma premier ministre bi ñu wax mu war a jiite euh, maanaam dajeewaayu dajeewaayu ministre yi nga nekk ci àll bi ba premier ministre bi ñëw ngay door di ñëw xorma bi nga ko jox des na. bu fekkee jotaay la boo xam ne président moo ko war a jiite nga nekk ci xal bi président ñëw ngay door di ñëw loola tamit dana yëg ne xorma bi nga ko war a jox des na kon nag jotaayu aada yi kiñ jàpp ne mooy kilifa gi ñam xilif dañ koo war a jiitu moom bu ñëwee rek dugg ci liggéey ba jotaayu diine yi kiñ jàpp ne mooy kilifa diine ga ñëpp ko war a jiitu bu ñëwee dugg ci liggéey bi mag mu toll ni yonantu bi nag sallallahu alayhi wa sallama ñëpp war koo jiitu ca jumaa ja nga xam ne bu ñëwee day dem ba taxaw ca kaw minbar ba ne assalaamu aleykum toog noddukat bi commencé ñu dugg ca liggéey ba nga nekk ci xàll bi ba mu ñëw toog ngay door di ñëw bëgg a toog yonent bi ne ko jugal nga julli ñaari rakkaa ba ñëpp yëg ne def nga lu jar luñ lay war a yeddee moo tax ba ni yonent bi génn àdduna gisoo mu waxaat ko ko gisuñ ko mu ko waxaat da ko cee yar yaraale ci ñëpp mu ne ko en même temps booy dem ñooy indi woon sarax di ko dàq ci yow nga mën koo yóbbuwaale ndax duñ ko yóbbooti ibnul arabi faqih bu mag la ci bu malik mu ne loolu moo waraloon yonentu bi digal euh, salik ne ko jugal nga juri ñaar rakkaa imaam bayhaqi yu tamit loolu la solo te bayhaqi yu moom lu mu wax rek ci hadis loolu lu wér la su ko defee nag kon moom du solo benn hadis daif amul ci hadisam yi moom ne lii la ni nii la ko gisee moo tax imaamu Malik ne ilimaan su taxawee di xutba ku ñëw da ngaa war a toog dugg nañ ca liggéey ba ndax xutba gi ki jullit jumaa ji la bokk dafa remplacer yeneen ñaar rakkaaya boo toogee nag bàyyiwuñ la ak loxoy neen waaye waxal subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar ñeent yoon su boobaa xam nga yoolab ku doxal ku dawal ñaar rakkaaya xel nangu na ko. ndax waxtu yi ñu wax ne dañuy tere ku ca la yii tere gi tere nekk tere xaraam niki bu jant bi fenk ak buy sox yenn yi nekk tere sibeel avant jant bi fenk ak bu fenkee ba pare ba balaa moo dox ba yëkkatiku ah ak bu jant bi soxee balaa ngaa julli timis ak fi imaam di xutba boo ko calculé woon lépp lépp passé wu ñetti waxtu ñeent waaw yow nag. bis bi yëpp ñaar fukki waxtu ak ñeent ñaar fukki waxtu yëpp fu la ci neex naafi la fu la ci neex julli rawatina guddi gi terewuñ ca dara nga bëgg a jël sa ñaar rakkaay di ko dugal foo xam ne dafa am coow te fukkaawu ya kon fa mel ni daal xut yool taxutut waaye bëgg bëgg bëgg a feeñ ak bëgg wane moo la tax a wane moo tax masabu Malik nanguwut ko waaye ala kulli xaal boo gisee benn ku ko def tamit sukkandiku ci masabu imaamu Ahmad am na fu mu ko teg bu ko defee ci masabu imaamu Shafi am na fu mu ko teg ñoom dañoo bàyyi xadis ba ci umumi yaga fi yonent bi ne ida daqala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka rakaatayni ñoom noonu lañ ko gisee moo tax ñoom bu imaam di xutbaak heure bu ñu mën a dugg jàkk ñoo xam donte gannaaw tàkkusaan la dañuy julli ñaar rakaa donte gannaaw ginnaaw bu ñu suba la dañu julli ñaar rakka ndax sharia dafa yaatu balaa ji amul dem nee na sharia dafa yaatu moo tax bul weddi kenn waaye sañ ngaa wax nag sa gis-gis ni nga ko gisee kon salig mi yalwaankat la woon yonent bi wane ko wane ne tamit jàkka man nañ cee yalwaan jàkka man nañ cee saraxe moo waraloon kon mu dàkkaloo nit ñi ci moom ñu koy sarax mu wane ko ba gaa yay dem ak gannaaw bi mu defee lii tamit jël na sarax ya yóbbu ko ànd ak lii dal ko anas mos na koo dal dafa doon julli ji jumaa tombeeg yonantu bi julli ba sëlmal bay ñib si mu seen mbooloo ma rek mbooloo moom njëkk a seen la gaaw daw dugg ci benn kër nëbbatu ba mbooloo ma tasaaroo mu door a génn jëm këram ndax ñoom dañoo xamoon lu ñu doon yëg am fu ñu tegoon seen kilifa ba nga xam ne ku ci def loo warta def rek dana xam loo yëg ci sa bopp ñun nag ji jamono jaay daraja jaay jaay feeñ bëgg a wane ni nga toll jékki-jékki nekk ku ndaw ndaw xale bu ndaw kaalawu kaala goo xam ne mën naa xeew gétt ak nag yi sa kaala gi sax mu ëpp sa kaala kilifa yi loola lépp dëgg-dëgg matu ko te jaru ko euh, ñu ne bëgg a feeñ dafay dafay dafay dafay damm gannaaw ak bëgg feeñ bëgg a feeñ tamit dafay teree feeñal nit rek xubbu zuhur yamnau zuhur ñu ne xubbu zuhur yaqtau zuhur boobu nag moo gën a bonati kon yooyu yëpp nañ koy baxi kilifa gum mën a doon kilifa du tuuti kilifa gu la yàlla booleek nu mën a mel nga jox ko ma jox ko gëdd fa yàlla jox ndax yàlla xam ne tax mu def ko kilifa mën naa matul sa yoon newu ci mën naa ñàkk mat ci yow te mat si ñeneen lu ci sa yoon jox ko jox ko gëdd gi war ci yow rek ba mat sëkk kon noonu la yonent bi yaree woon njabootam gi kon yalwaan ci façon boobu dagan na niñ koy defee ki ji jamono ngi nag dafa araam jumaa jot na te yalwaankat yi xaraamkat su ma yeboo wax dëgg dëkk teeru yi rek dëkk dëkk àll yow moom alhamdulilah mucc nañ ci kenn saraxuwut fa musuma dem ci dëkk ab xàll julli fa ñu sëlman ba pare am kuy wax ne damay yalwaan déggatoo ko doo ko gis yaakaaruñ foo sarax ñay saraxe tamit dafa gën a bëri sondeel rek ak ay perkaal waaye jàkkaay teeru yii nga xam ne sarax ya xaw naa duun léegi léeg ay patron dañ fay jullee yàlla bu la fa ajuma fekk. ilimaan ji day xutba seen yoon nekkut ca ñiy jéggi doqi mbooloo yi di dox di yalwaan ñi leen di xoomal ñi dal ci kaw nit ñi foofa moom bu imaam xasee dugg ci xutba gi saraxu xaraam na saraxi xaraam na foofa xaraam na lépp lu ñu fay war a defati sax xaraam na takk sa xaraam na jàpp surga xaraam na liggéey fa xaraam na liggéey lu fa xaraam na même bu la jumaa ji jàpput sax xormaalal jumaa ji nga wàccee sa magasin booy nekk ci biir te julli jiwoo sax yaa xam waaye waroo sax ubbi magasin ba ku ñëw xam ne kii day jaay lépp luñ fa def dañ koy firi nag ba mooy saraxe ak takkab sëy ak maye. sarax boo ko defee nanguwaat ko day mel ni ku ku ku ku lekk ba pare wàccu ko lekkaat ko moo tax heure boobu boo fa saraxee def nga lu xaraam yow muy saraxu def nga waaye kenn du ko nangooti boo fa mayee def nga boo fa ñaanee def nga lu xaraam waaye kenn du ko nangu. boo fa takkee sëy def nga lu xaraam waaye heure boobu buñ fa takkee sëy tamit kenn du ko firi ñetti yi rek la ci fuqaaw yi setti ne mooy yi nga xam ne bu buñ ko defee kenn du ko firi yeneen ñi ca des yëpp buñ ko defee dañ koy firiwaat annulé ko dootul mën a nekkati kon yooyu nañ ci daw lu bon a bon la waaye léegi jamono ji ilimaan ja dañuy nekk continué saraxu ilimaan jay ba ñuy jëgg mbooloo ma na bañ na julli ñu julli bu ñuy sëlmal balaa ñee nañ joxe dog yak ñaan kii taxaw ne ñetti fan lekkuma ñetti fan boo toogoon lekkoo doo dee loolu du waxi caaxaan ah ñetti fan a ngi nii nangam ak nangam ak nangam yooya moom dañ koo war a jagalaat jéem koo organiser seet nuñ koy defaraatee waaye yooyu yëpp dañ koo miin waaye dafa xaraam dañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax jàkka dafa foor boo ci duggee mooy tundikul di kottante say baaraam ko xam ak buur bu day ni yàlla audience rooflante say baaraam ak di ko kottalante yooyu yëpp nañ koy daw dañ koy tere tabaarakallaahu ci jàkka nañ koy daw bu baax a baax a baax a baax a baax a baax su ko defee tamit nekk ci jàkka ji euh, nekk ci jàkka ji yore sa portable bi donte sonewut waaye yaa ngi composé ko xool wala yaa ngi connecté wu di xool message yi ñu lay envoyé yi nga bëgg mën a envoyé nañ te bi ngi see biir jàkka ji dañ koo miin waa yooyu yëpp dafa araam jàkka daal ku ca ne dara war sa nekk sa soxla lu dul lépp lu jëm ca wàllu julli ga ak wàllu tudd yàlla ak màggal kook jàngal quran jigéen ñi mën nañoo dem jàkka buñ melee nañ war a mel jigéen daal su fekkee muuru na ba xarxaram ba rek kay feeñ ak cet ténk ya lam sol yaatu lam sol jot lam sol fatt su boobaa mën naa dem ca jàkka ja taxaw fa war a taxaw ca gannaaw sàppee góor ña bu góor ñëwee sëlma rek mu gaaw dem balaa jaxasoog moom ca ñibbiwaay baag yooya bu fekkee jigéen la goo xam ne nag amatul genn góor gu ko xeme mati ci kaw suuf ngi ak màggetaayam ba kooku moom mën naa dem jàkka jamono ju ne dara niwu ca waaye nag su fekkee da ngaa nekk ku ñuy xemeem yaa ngi desee dara ci taar bala ngaa dem melal ni nga war a mel su fekkee ni nga war a mel mënoo koo mel nag ah toogal sa néeg nga jullee fa dugg ci waqarna fi buyutikunna wala tabaraj na tabarujal jaahiliyatil uula yonent bi dafa daan wax ne nag bu leen tere seen jigéen ñi ñuy génn jëm ca jàkka ya doonte seen seen kër yaa gën laa tamnau nisaa an la an an yaxrujna min ilal masajidi wa buyutuhunna xayrun lahunna beneen bi abi hurayra mu ne laa tamnau ima allahi masajidallah wala yaxrujna bu ko defee loolu la waxoon xadis la bopp imaam ahmad abu daawuda moo ko solo kon jigéen bu melee nam war a mel mën naa dem jàkk bu melu nam war a mel nag na toog këram mu jullee fa looloo gën ci moom suñ ja suñ jigéen suñ jamono ji nag jigéen ñu ci bari melul ni ñu war a mel jigéen goo xam ne bu génnee na muy sol nga da wax ne xanaa ki dafa am combat xanaa kii day bëri ji takkaayu ba dëgër di wëgër wëgër li kooku kay bu demee jàkka yàq jàkka waa jàkka ja kooku kay xamal sa kër jigéen goo xam ne tamit balaa génn. dana monte ay we monte xef jël xar-xaramam ba fu ne mu rëdd rëdd yoo xam ne jëmuñ fenn ah, jël jël tuñam yi lu ne mu xonqal ba yow boo teeloon a yeewu dajeeg moom bu asamaan si léeragul nga ne rab la kenn du la weddi looloo waral sax lu bari ci ñoom buñ ca tolloo dañuy bari ay faru rab damaa tëdd ba guddi di gént di sëy damay def nii mënu am doom nangam ak nangam ma ne dara yaa niiru rab rek rab ya foo ne rab nga ñu def la far kese moo ko waral góor ñi bëri tamit kenn xamatul lu ñuy niru la ñuy sol kenn xamul lu ñuy niru su boobaa tamit boo tollee foofa da ngay bëri ay faru rab yu jigéen damaa tëdd ba guddi di sëy damaa def nii damaa def nii jàmbar ya du jeex ma ne ko yaa niru rab jël sa bopp bi du ko ay yoon yu jëmul fenn jël sa bopp bi bi mel am Moussa Njubuli yi karo kaw kawar yi jëm kaw yi jëm suuf lu ne kenn xamul looy niru su boobaa rab yu jigéen yi dañuy foone rab nga rek ñoom tamit ñu def la far moo tax tamit di di ngay ngay gént di sëy ak ñoom waaye jigéen bu melee na mu war a mel sol la mu war a sol su boobaa rab yi ak seytaan yi dañ koy daw di ko di jéem a mucc ci moom waaye bu melu mu war a mel nag ñoo ngi dañuy daw di ko wuti di ko ñuuxu waaye koo xam ne foo toll yaa ngi xiiw di wax wax ju xiiw di sol colaay gu xiiw takkoo njàpp tudd yàlla fonk ko kooka amul wenn rab wu lay ñemee ñuuxu amut waaye boo melut noonu nag ah rab yi dañuy foog ne rab nga rek tabaarakallaahu ñu jege la ñuuxu la def lay far rek nga jëlee ca loo xam ne fa la yóbbu ëllëg kenn xamut nu mu war a mel kon nag yooyu yëpp jigéen gu mel noona bu bu waxuma génn këram sax wartaam waxuma la dem ci jàkka ja kooku moom Euh, xalaatu ko waaye alhamdulilah sax ñu mel noonu sax seen xel ni wu ca jàkka ja bañ koy mën a yàq kon nag euh, a jàkkaangoog ak la ca war wax naa la ca lu bëri waaye li ma ci bàyyi sax waroon koo wax wala manoon koo wax te mënuma koo wax wala ma xam ko te mënuma koo wax wala mënuma koo waxee ni ma ko xamee euh, moo ëpp téeméeri junne yoon te yéen ñi ci jàkka yi tamit daal nañ ko xam xam ngeen ko kon daal ci tënk nañ xam ne. yàlla moom àdduna bi lépp waaye ba mu ko moo moo wut ko nee na moomale naa leen ko lenn dong laa ci moom te moomoo ko kon na ngeen ma ko moomale mooy sama jàkka yi bëgguma fa ñi fay yëkkati lenn mbaa kenn ku dul sama tur yu man yàlla doy naa ci ku ñu war a yëkkati ku fay ñëw man nga xam ak audience ku xam ak man audience nag wax ak keneen ku am audience comme yow mbaa amul audience wax dëgg yàlla sa portable amul audience yow yaa ngi am audience di wax ak moom war na laa mën a wàcc bu leen ca dugal ay clan bu leen ca dugal ay pexe bu leen ko def ay centre commerciale di ca dundu jublu leen ca dundal ko ci seen xalal dundal ko ci seen i jëmm dundal ko tamit ci seen i ñaq jàkka yi tabax ko xam na yool bu rëy yéen ma fu ma fu ma def fu ma leen def rek la ma bëgg ngeen defal ma fa yéen laa koy sant bu leen ci yaakaar kenn la ma leen jox ci wërsëg ba kenn ku ne ci yéen tabax ay néeg amee ay kër ba seen fas yi amee wanag seen ngooñ ma am fu ñu koy denc yi waaye waay yéen ñëpp bu ngeen bokkee sotal ma benn néeg dara war a mën a taxaw ñeen ñu ne quartier bañ dëkk tabax ay étage ñii R plus 4 ñii R plus 5 R plus 2 waaye waaye ñoom ñëpp buñ bokkee sot benn néeg alaa kulli haal dinañ ci mën a def waaye nag nit ñi ndes rek lañ mën a def ci néeg yi ku ca jël boo nekk dix mille ku xool ne dix mille bi yëkkati mu nuyu la nga ne baaxut cinq mille nga ne baaxut deux mille franc nga ne baaxut mille franc nga ne baaxut cinq cent franc nga ne baaxut mujj nga weccet rek ngay doon ku jël sa weccet di ko joxee ci jàkka sa aajo bu dee dana faju tamit balaa faju ñëpp dañ ko yëkk kenn mënu ci dara ku yëkkati kayit yu xam solo di ko def ci néegi yàlla yi yàlla na la suturaal àdduna suturaal la àllaaxira aajo joo xam mu faju yaag sa njaboot kenn du la yëgal dara kon nag jàkka yaa ngóog nañ koy bàyyi xel di ko fonk di ko fonkale yàlla di ko fonkale tamit ci li nga xam ne noonu la ko tëralee woon ya yañ ca bañ yu ci bëri wax naa la ko yooyu yëpp dañ koy daw te di ko sori bu baax a baax a baax a baax boo xam naa bu subaa ci waxtu yi boo ma toppee nag ma dugg ak yow ci nit ku waaj war a dem bàmmeel ñu koy tuddee kuñ teewal ab diggam muy dee lu ci waaju nuñ koy waaja lekk nuñ koy sangeek nuñ koy sangeek nuñ koy julleeg ay bàttaleem nuñ ko war a wéyalee ba ma toppee suba ci waxtu yi mooy nekk suñ bopp darsu yàlla na yàlla yóbbu ñu ca in uridu ila al islaaha mastataatu wa ma tawfiqi illa billahi alayhi tawakkaltu unib wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu